أعوذ بالله سميع العليم من شر شيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان وبالهدى إلى يوم الدين ورد الله الخالد عن شيخ الشيوخ برزخ البرازيق تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد الصالح بن التيجاني وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن نهج نهجه وسلك طريقه الخبيم إلى يوم الدين أريد الله الخالد عن سليل عثمان سيد الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه وعن جميع أبنائه وأسباته وأحبابه إذا لا سقط بعده أبدا وأيد الله ونسر الخليفة العام لطائفة التجاني والخليفة العام لجميع أسرة العمرية مولاي سيدي ابو بكر أبو بكر سي ومولاي سيدي محمد البشير التال أيدهما الله ونصرهما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 ونقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي غناو بنو سانتي يالا سنو بروم تي بروم لب دي بروم نيب دي بروم فب تشانت جو يالوك جمم جو تد جو مجد. julli ci sangu sang yi muy sayidil wujud wa alami shuhud sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla sunu boroom yàlla bu mu dañ mukk di dol dotti ay leeri waame ci tëraayu sang bu tedd boobu di saydil wujud wa alimi shuhud sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko ko soppeem ba ñaanale سيد الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه ما أرعد الرعد والورخاء تنعب من هديلها وجرى دمع من الخلم يعني على الدفل يعني يلا سبم بموميت سبي ينتبي بنتم بسيدي شحمة تيجاني شريف رضي الله تعالى عنه ممد كل أولياء الرحمن كن يخمن ميتب مولم أولياوي شرخا وخربا شمالا وجنوبا فوقا وتحتا ياب مالين دي تبو مون شيخ تيجان أمو البن وليو لدو شيخ تيجان مولي تبو مو قم أب تيجان مو قم لنين من شيخ تيجان مولي تبو ñaan sangu bu tedd boobu di tëbb di tëbbuwaate yàlla bu yàlla dañ mukk di sotti ay waamee leer ci teraayam bee ca faas ak mboolim xulafaawam yëpp ak mboole seen jullitu yàlla yëpp yal na yàlla defal leen ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa seen mbokku daara Pa Makhtar Sylla moo dellu siwaat ak yéen ci seen émission Miftahoul Houda bi mu daan seq àjjuma bu jot ak al oustaz Mouhamadinil Mansour Fall tey oustaz Mansour dafa am ngànt nangul ko ngàntam looloo tax tey yegg seegul ci émission bi waaye ñu ngi koy nuyu moom oustaz Mansour Fall ba suñu wéyjur alxaaji Mor Fall di ko ziyaar bu baax ñu wuutu ko fii mu wuutu ñu feneen nuyu suñu rakk suñu soppe oustaz Moustapha Sylla bu Rimbax e tubaarakallaahu moom it ci émission bi la bokk li tax mu bokk ci xëy na du ngeen ko dégg ci studio bi du ngeen ko dégg ci kàddu gi wala déggagu leen ko ay da ngeen ko dégg sax incha allah wax danañu ko indi muy bokk ñun jataay yi ci kàttanu yàlla bu yàlla sottalee suñu bëgg-bëgg wante émission bi moom moo koy jël di ko transféré ci ay yeneen support yoo xam ni tubaarakallaahu Safina TV am na leen Safina FM am na leen tubaarakallaahu di jàpp ci liggéey bi rawatina ci groupe bu whatsapp yi rawatina daara bu mel ni daara yi rimbax tubaarakallaahu moom moo fa nekk ak mbokkam yëm ko seqal yëpp tubaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu ñoom tamit di leen ziyaar di nuyu auditeur ak auditrice yëpp nag bàyyiwuñ kenn ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen tawfiq alxaaji daawuda njaay bu sëriñ abdul aziz al amin maa ngi leen nuyu di leen ziyaar cheikh mahamadou lamin ngom at tijani borom yelli tv maa ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax abdul aziz ba sama doom nekk fële ci kër mbay faal maa ngi koy nuyu El Hadj André Ba maa ngi lay nuyu di la jaali sa mag boobu faatu fan yi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare aljanna Baye El xaaj Doudou sekk maa ngi lay nuyu su bàyyu rajo bi suñu kilifa ñun ñëpp tubaarakallaaw ci rajo bi rawatina auditeur ak auditrice yëpp di bàyyi baaba warga tubaarakallaahu di kenn ci suñu sëriñ suñu soppe suñu wëllëre Cerno Hamidou Yoro Baan suñu wëyjur Eh, moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar nuyu bàyyil xaaj màggat njaay ak waa déppo njaxate njaasaan yëpp ñu ngi leen di nuyu tubaarakallaahu nuyu ñoom mama sahaba Diop mama Aida Fall mère Ndioufa eh, ñi nga xam ni yëpp daal bu waxtu wi jotee ñu bàyyi liñ doon def yëpp te émission bi oustaz Djibi maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar xaaj Pape Malick Lay yéen ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di leen baalu xàq te di leen ko baal te di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla boole ñu jéggal ci kàttanam ak ci mbaaxam di tubaarakallaahu ndokkale waa Sénégal yépp nag ci bés bu tedd bi ak weer wu tedd bi bis bu tedd bi mooy aljuma weer wu tedd wi mooy caabaan di baraxlu baraxlu

mooy ñi sant siise ak lu ak jaxate ak sàmb ak mbay ak mbaay ñooñu lay soññ lu mu leen di soññ daleen di wax eh, bor yi ngeen amoon ca koor gëli paase gaawantu leen ngeen fay ko ndax koor gaa ngi ñëwaat kon balaa may dugg ci ngëneel yi baraxlu damay fàttali ñi amee woon bor ci koor gi fay jot na waaw maanaam délai bi délai biñ la mayoon ci bor bi yaa ngi ci dernier délai pour nga fay waaw bor bi délai biñ la ci mayoon pour nga fay ko yaa ngi ci dernier délai ki nekk ci dernier délai bi nag mooy ki nga xam ni ngant li taxoon mu am bor ci koor gi ngant loolu dañ na waaye ki nga xam ni ngantam bi taxoon mu lepp ngant bi dañagul ba léegi ba léegi moom koor gi mi ngi ko jàppalaati idda mi ngi ko mayaat ay dele ki feebaroon te wéragul ba léegi mi ngi am délai mënagul fay ah mënagul fay lu dul dafa wér ki nga xam ni moom docteur bi moo ko tere woon koor te ba léegi docteur bi digale gaatu ko pour mu woor waragu ko ba léegi waaye am na lu ko war su fekkee mën na am na am am bu mu mën def mooy léeg mudd jox miskin lu ko regg ci bis kon ku ame bor na gaawantu fay moo xam mu bare moo xam mu néew gis nga yàlla baatu leb ak fay daf koy jëflanteeg ñun ci kàddoom ci mbaax gu mu baax ak yërmande gu mu bare waaye lépp ak fay doxul suñu diggante ak suñu borom suñu borom dara waru ko ci ñun ma wax la ko tey parce que am gi am sax warul woon yàlla rek moom la war pour mu am ak amam moo war ñun suñu am dafa jomb yow mi nga xam ni sax am dafa jomb nag ki nga xam ni ak amam dafa war ak amam war am moom ci mbaaxam ak ci yërmandeem mu amal la ba pare am yum la sant deug deug deug bo de borom xel mu sel di borom xel mu rafet war caa taxaw war caa taxaw jaamu yàlla niveau bi ci gëna a tuuti mooy damay jaamu yàlla pour dem aljana bi maxtar Makhtar le taxaw damay jaamu yàlla pour ragal safara bi maxtar Makhtar le taxaw koku moy niveau bi ci gëna tuuti mais niveau bi gën a rëy ci jaamu yàlla muy bëggoo ci aljana bëggoo ci safara maanaam bëggoo ci aljana ragaloo ci safara bëggoo ci gis yàlla li nga ci bëgg rek mooy yàlla ci boppam ëllëg mu taxawal ci kanamu jaam yi ni jaam bii dey xam na li tax ma bindoon ko gërëm naa ko wa ridwaanun minallahi akbaru la Cheikh Al Hadj Malick waxoon radiyallahu taala anhu biñ ko laajee affaire u aljana Cheikh Al Hadj Malick ni aljana Maodo xamu ci dara parce que bi yàlla di bind aljana Maodo joxe wu fa muul Maodo joxe wu fa ciment Maodo joxe wu fa ndox Maodo joxe wu fa fer Maodo defu fa dara kon moom ay affaire u aljana yooyu moom yoonam nekku ci waaye xam na ni moom yàlla ko bind. ورنا جامو يالا دا فاي جامو يالا بويجي بروما تكي موك لا خسايا تو يافوس موك تخواي رك ديغنتي موك بروما بويجي يالا بروما تخ تخ لولو لي موي سنتاني يالا وا بود ربك حتى ياتي يكل يخينو جامو يالا با يالا تكي سا لا خساي موي با يالا رايلا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين جامل يالا بدايكس قد تد بين بلاص te jaamukatu yàlla dee du ko tee jaamu yàlla ma wax leen ko tey déedéet mukk ruuga fu mu nekk mu ngay sabal boromam ilaa yow mi yubaasuuna même su demee aljanna ak jëmm ja foo ko fekk mu ngi naan alhamdulillahi alladi awrathana awrathana hadihi aljanna نتبوأ من الجنة حيث نشاء الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي alhamdulillahi rabbil alamin loolu rek la ñuy wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla mi nga xam ni moo ñu dugal ci kër gi nga xam ni jëf du fi dugal kenn ñu ngi koy sant kon jaamu yàlla moo ñu war kon nit ki li ko yàlla sant na ci nekk li ko yàlla tere na ko bàyyi su ko defee nga fay sa bor maa ngi lay wax yow mi nga xam ne da nga amee woon ci koor gi daaw bor gaawal fay de gis nga boo sàgganee ba koor gi dellu siwaat te fayoo da nga fay ba pare dana am leneen lu la ca war mooy bis bu nekk da nga fay bu koor gi jàllaatee da ngay fayaat sa boru koor maanaam ki amee woon boru koor deux mille fayul ba deux mille vingt ñëw mu wóor deux mille vingt et bi ba mu jeex day fay boru deux mille vingt ba te su koy fay bis bu nekk dafay leeli mudd parce que da ko leb ci sa càggante bis bu nekk da ngay leeli mudd loolu mooy kafaara bàkkaar bi nga ci maanaam sa ba sàgganteeg bàkkaar bi parce que fay boru julli fay boru koor loolu dafa nekk farata waaw ni ngay amee boru julli war ko fay ah, ci yow mi nga xam ni bor bi bi mu lay dal booba nekkoo ci ngant noonu lay farata pour nga fay boru koor yaa ayyuha allazina amanu udxulu fi zilmi kaafatan gis nga lislaam boo ciy dugg da ngay dugal sa lépp amul yër dugal sa bopp dugal sa loxo dugal sa tànk yér amul ci lislaam udxulu fi zilmi kaafatan pax mi jàmm ci nekk dugal rek ne lépp dugg bul réserver dara bul jàpp lii bàyyi li bul def li wacc li xam nga woor ñaar fukki fan ak juróom-ñaar wala ñaar fukki fan ak ñett amoon ngante ñetti fan ñu wori nga naan man duma fayonteeg yàlla xam nga loolu seytaane moo lu dugg yow tamit parce que li nga def moo ëpp li nga bañ def kon fayal bor bi nit ñi di la soñ waaye fayal sa boru koor yow lay wooral wala sama bopp lay wooral mais sa bopp ngay wooral moo ñu lay ñu bëgg nga am lu baax kon wooral fayal bor bi yow tamit bu kenn wax ni man duma yoon fayoonteeg yàlla wax naa la yàllaa baax moo tax mu indi baatu leblente sunu biir mais ñun mënuñoo lebal yàlla lu ñuy lebal yàlla lu ñu am bu yàlla neen man zal lazi yuxridu llaha qardan xasanan mais kooku baaxu yàlla la rek yow tamit bul yaakaar ni yàlla <laughs> daf la tàllal pour nga lebal ko dara mënoo ko lebal dara parce que amuloo dara yow ñun dañoo ñàkk yàlla moo am dañoo ñàkk koo xam ne dangaa ñàkkoon jóge ci ñàkk ñu amal la te dangay ngay delluwaat ci ñàkk kooku amuloo ah amuloo alatta hmm, ala linsaani inun min a xiinun min a dahri lam yakun cheyan maskuran ah kenn ku nekk tey ci ñi may dégg may wax soo xoolee fii téeméeri at ci gannaaw wala téeméeri at ak ñaar fukk ci gannaaw foo nekkoon ah foo nekkoon <laughs> ah xoolal lool rek fii téeméeri at wala téeméeri at ci gannaaw foo nekkoon ah bu dee classe PAM ak classe léegi sax da naan ko fii rek cinquante ans ci ginnaaw foo nekkoon fan nga nekkoon. fekk yàlla moom mi ngi fii di am ti du fi jógee di am ilaa yow mil baasi. kon kooku mënoo kaa lebal dara waaye sa bopp ngay lebal sa bopp ngay defal ci yàlla looloo tax yàlla indi baatu man zalladi yuxridullaaha xardan xasanan ana kan mooy lebal yàlla bor bu rafet kon li ngay jaamu yaakaar ni yàlla nga koy defal defaloo ko yàlla sa bopp nga koy defal kuy defal sa bopp nag war a def mu rafet war a def mu baax kon képp ku amoon bor ci koor gi gaawantul waaye nga fay ndax ñu ngi ci baraxlu léegi nag weer wi ñu dugg muy weeru baraxlu mooy ban weer mooy weeru sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam est-ce que waxoon naa la rajab yàlla nee na mooy weeram te yàlla moom lépp yonent bi tànnaat baraxlu ni mooy weeram te yonent bi tax ñu bind lépp kooku am na loo ci mën a jàngat li ñu bind lépp yaa ko moom ndax yow yaa tax moo tax ñu bind asamaan moo tax ñu bind suuf moo tax ñu bind ñu moo tax ñu bind malaaka yi moo tax yàlla yónni yonent yi moo tax moo tax lépp lu am ci kaw suuf benn jëmm moo tax lépp lu am ci biir suuf benn jëmm moo tax lépp lu am ci asamaan bépp benn jëmm moo tax muy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la Cheikh Alxaaji Malik radiallahu taala anhu waxoon ne wa maa xalaqa arrahmaanu cheyan li nafsihi yàlla bindul dara ba dara booloo jeex pour boppam soxlawul dara moom yàlla soxlaalul kenn dara moom yàlla mooy assamatu ñëpp moom lañ yaakaar yaakaarul kenn ñëpp moom la ñuy xool kenn ñëpp moom lañuy ñuy déglu dégluwul kenn ñëpp moom la ñuy ñaan ñaanul kenn moom yàlla ñëpp moom la ñuy yaakaar yaakaarul kenn mooy asemet moom yàlla ñëpp yàlla lañ yaakaar ñëpp amul ku yaakaarul yàlla ku nekk ci kaw suuf wala biir suuf wala ngay mbindeef wala ngay jamaadaat wala ngay la ashiya ak lu lu am rek yàlla la yaakaar mom nak yakarul ken yakarul ci ken dépendreul ci ken xarul ken degluul ken lajul ken mom yàlla seetal ma li rek ah yàlla ni ko nak man limu bind yeb ya tax ma bind ko ndax man soxlawuma dara bu yàlla don am lu mu bëgg wala ku mu bëgg ci misal te amna na kenn la muy sayyidul wujud moy soppe yàlla yunt yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wax na ko ci alquran di nee na yonent bi waxal gars yi suñu bëggee ma bëgg leen ah nañ ma bëgg nañ la bëgg man jarul man ñuy wax ak man nañ wax ak yow ndax ku la bëgg bëgg ma ndax yaay suma bunt waaw secrétaire particulier wu yàlla waxal ni mooy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa mooy léppi yàlla moom yonent bi fa anta baabullahi ayumri in ataahu min xayrika laa yadxulu yonent boobu nag nee na weer wi weeram la waa gars yi man laaj la tuuti nag mooy yonent bi nga bëgg yonent bi nga sopp nee na weer wi weeram la di weeru baraxlu waa kon weer wi nag wax dëgg yàlla war nga ko dundalle yonent bi ndax yow moom nga wax moom nga bëgg am na ñoo xam ne bu gàmmu jotee xam nga fu ñuy gàmmoo ji tiwaawoon lu tax non seulement bëgg nañ yonent bi sopp nañ ko xam nañu ni gàmmu farata ci ñoom mais mënoon nañoo gàmmoo Dakar ñi mënoon nañoo gàmmoo Kaolack ñi mënoon nañoo gàmmoo Fuuta ñi mën nañoo gàmmoo Saalum mais duñ ko def tiwaawoon la ñuy gàmmoo ji pour lan pour seen cofeel ci Cheikh Al Hadj am ñoo xam ni su gàmmu jotee Kaolack lañuy gàmmoo ji mais lu tax duñ gàmmoo Dakar seen cofeel ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass wala mam Abdoulaye Niass wala mam Khalifa Niass wala mam Abdoul Hamid Kane ngan ngën ki yàlla yooyu sopp gën leen sopp am ñoo xam ne bu gàmmu joti Tuubaa la ñuy gàmmu je lu tax seen cofeel ci Cheikhul Khadim ñu nu bëgg Serigne Touba moo tax ñoom dañuy dem gàmmu ji Touba ñi laayeen seen cofeel ci maam li ñi njaasaan seen cofeel ci maam bu kunta njaasaan te foo nekk mën nga fa gàmm lu tax ñu déplacé wu dem foofu seen cofeel ci nitu yàlla yooyu fa tëdd te liggéeyal yàlla jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi moo tax ñu dem ci seen dëkk ya kon looloo tax kon yow boo soppee yonent bi yonent bi ni baraxlu wi sama weer la kon weer wi bu ñëwee war nga ko dundal comme ni ko yonent bi daan dundalee sallallahu alayhi lan la ko yonent bi daan dundale mooy barelum ci woor ba digle ci koor moom yonent bi yonent bi ne dama toog benn guddi muy guddi fukkeel ak juróom ci weer wi ñu naan ko nisfu shaabaan ma toog ba yàgg rek Seydina Jibril ñëw alayhi salaam ku tedd moom Jibril ku tedd jóge ci ku tedd fekk si ku tedd kan mooy ku tedd mooy jibril fu mu jóge ci ku tedd mooy suñu boroom subhaanahu wa ku mu fekk si ku tedd muy seyduna muhammadin sallallahu alayhi wa wax ko wax ju tedd mooy wax ju jóge ci yàlla lu mu ko wax dafa ñëw ni ko yaa sayyiduna muhammad صلى الله عليه وسلم بودي مي حديث بنك يا محمد لبنت اي توزور داماي واخني تور يونتي بي صلى الله عليه وسلم اي ورول ويت لوي ورول ويت موي تور يو بوكاي تودو داناي واخ سيدنا تك محمد سو وخي محمد با بار تك صلى الله عليه وسلم ولا عليه الصلاه والسلام ولا عليه السلام ndax yonent bi toll noonu ci yàlla moo toll noonu ci yàlla subhaanahu wa mu ni ko yaa sayduna muhammad yow yonent bi tudd muhammad te yàllaa ko ko tudde est-ce wallahi yàllaa ko ko tudde yonent bi dafa bëri lu mu gën le ñëpp wallahi chettt yàllaa ko tuddee muhammad sallallahu alayhi wa إذا ودعت سميه محمدا ألم ربتمي أي كتمان فتغتنمي ها والله aminan ne bi ma ko ëmbee jibril bi mu ñëwee dafa ni ma tudde ko yu muhammad de parce que tudde ko muhammad yàlla ilham maamam abdul muttalib def ci xelam ak xolam ni ko tuddee ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu judd mu tuddee ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa màkk yëpp buur ñëw kër abdul muttalib ni ko amoo maam wala mbokk wala xeet wu mu sa tudd muhammadan lu tax nga tuddee sa sit bi sa doomu doom muhammad mu ni leen dama bëgg mu nekk ku nu sant ci kaw suuf nekk ku nu sant ci kaw asamaan ne ku ñu sant ci mboolem awaalim yiw yàlla am yépp te def ko yi ñu gis ak yi ñu gisul loolu tax ma tuddee suma sit bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Jibril ni ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa borom nee na nga jug muy guddi nisfu Chaabaan nisfu Chaabaan mooy weer su amee fukki fan ak juróom guddi gu yéeme la guddi gu bëri tiyaaba la guddi gu bari garanti la guddi la goo xam ni yàlla def ci nangu ñaan guddi gu yéeme guddi gu jara fonk la bokk na ci juróom-ñetti guddi yi gën a rëy gën a màgg ci at mi muy guddi nisfu Shaabaan ca la bokk yeneen bi neen ma jóg mu ne ma sa borom ne nga jàpp te nga julli te nga tàllal sa loxo mu jëm kaw asamaan mooy nga ñaan sa borom neen na guddi tey mboolem juróom-ñetti buntu asamaan yépp ubbi na ko te buntu asamaan du ubbeeku lu dul waxtu julli wala yàlla di wàcce yërmande mboolem buntu yërmandeem yépp nee na ubbi na ko tey yonent bi ni jibril lu xew mu ne ko sa borom nee na tey mooy guddi nisfu Shaaban sa weer wi nga xam ni moom moo la ko jagleel te nga tànn ko fa mu defal la ci teraanga yow it teraanga jëm la ci defal nag gudi tay mbolim buntu asaman yep ubinako na ba nga gané jamono nim la ubbi la woon buntu asamaan yi xaaleel malaa'iku iski ababu sama futihat kazal jinanu wa nuru shamshi fi al-izmi cha khilas cha sheikh al-haj malik yal nañ ko yàlla fayal barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne ma jóg julli ñaari rak talal yàlla suma loxo ma ñaan bi ma ñaanee ba noppi jibril ni ma sa borom ne guddi tey mbooleem jaam bu ko màggal yàlla jéggal na ko mboole seen bàkkaar bu mu mës a toggoo ay waay yàlla na ko mboole seen bàkkaar bu mu mës a toggoo xam nga yàlla ci mbaaxam yenn saa yi day day gracier day baal koo xam ni to day baal koo xam ni maanaam jéggaluwu ko maanaam ba maxtaar day amay bàkkaar xamul bakkaar ya wala fàtte na ko wala bàkkaar bi jéggalu ko yàlla ah wala yëgul ni def na bakkaar bi mu am lu mu def ci benn guddi guddi nisfu Shaaban boobu julli ci ñaari rakka ñaan ci yàlla ni ko jéggal te bi julli ñaari rakka sax mooy oto lay ñaan ak ay kër ak soxna ak yu kenn xamul yooyu lay ñaan yàlla ni ko man far naa laa jéggal sa bàkkaar yëpp mu ni ko guddi tey képp ku ci taxaw yàlla dana la jéggal sa bàkkaar yépp lu am solo la lay jéggal sa bàkkaar yëpp yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam kontaan Seydina Jibril ni ko nag ñii ci sa xeet wax leen ñu gaaw a tuub ndax ñu bokk ci ñi yàlla di jéggal ndax ñii nee na du leen jéggal lu dul dañoo tuub bàyyi liñ doon def mu ni ko kan ak kan mu ni kuy bokkaaleeg yàlla mbokk yi baaxul إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء yàlla ne bàkkaar yëpp laa mën tolore yàlla lépp la xajoo mais waxin la ah bàkkaar yëpp laa mën tolore ah ba mu des bàk bàkkaaru bokkaale parce que bokkaale yàlla mboolem bàkkaar yëpp dafa daje foofu booy bokkaale li fen di garaaw garaaw fen nga ci biir bokkaale yàlla mënu bokkaale fekk fenoo soo nee yàlla dafa am moroom a ah, fen nga waxoo dëgg yàlla amul moroom soo ne diw yàlla la fen nga xam nga ni du yàlla parce que dafay dee dafay lekk dafay naan dafay def nit yëpp di def soo jëlee nit teg ko palaasu yàlla xam nga ni li yàlla mën mënu ko kon fen nga mais jëw nga itam parce que li tax nga jëw muy su yàlla taxaw woon doo ko wax déedéet waxuma la yàlla taxaw mais su la boole woon ak benn ci jaamam yi mu taxaw doo ko wax mooy jaamam yi muy yabal ci nit doo ko wax su benn malaaka taxawoon doo ya doo ko wax ah déedéet kon jiw nga def nga rambaaj parce que jaxase nga yu bokkul boole nga yu bokkul sos nga parce que li nga wax amul mu ni bokkaalekatu yàlla yàlla ne duma ma ko jégal ci guddi googu muy kenn kon yow mi doon bokkaale yàlla te bëgg ci bokk waaye génnal ci bokkaale gi tuubal te yonent bi nee na jibril daf ko ni yàlla ne duma leen baal lu dul du ñu tuub bàyyi bàkkaar yooyu ma yay wax te mooy yi ma lay limal bokkaale ci la bokk wax lu dul dégg ca la bokk mooy fen jëw ca la bokk ñaari jullit yoo xam ne dara doxul seen diggante loo xam ne sharia nangu na nga tongu ci nit nga sa mbokku jullit lu ñàkk fayda waaw ay yu ñàkk fayda tax nga bàyyi sa mbokku jullit di ko romb mu lay romb dootoo dootoo ko tudd rawatina nag muy sa mbokk ba pare jullit di sa mbokk deret boobu kooku itam yàlla du ko jégal ak ko xamni dafa sax ci njaalo njaalo moy ànd ak soxna so xamni takuloko bi fardillahi wa sunnati nabi sallallahu alayhi wasallam ko kooku itam yàlla du ko jegal ak ko xamni da fay dog bokk manam bokk gu mu bokk lu ñaaw rek la ci wax waaw du wax ci bokkam lu rafet kooku mooy dogkatu bokk so degge ci sharia ñun la dog bokk rek moy ko xamni du def lu rafet ci bokk ba waaw bu mbokk yi xewlee du dem waaw dog bokk mooy koo xam ne bu sa mbokk yi xewlee doo dem bu sa mbokk yi xewlee doo yónni bu sa mbokk yi dee waxante lu baax doo ca bokk yaa ngi dog bokk gi waaw nit dafay fonk ay bokkam wax naa ko toujours ma wax ko xale yi ma leen da ngeen di fonk seeni bokk waaw man dey àddina bi yëpp yëpp laa wax samay bokk ma ci gënal waaw muy waari mbax samay bokk ñoo ma gënal ñëpp ñëpp xanaa su yàlla effacé woon dënd bi effacé ko woo ma ni ma Pape Makhtar léegi nag affaire bi dama koy defaraat kenn ku nekk yaay tànn foo bëgg a bokk dama naan ko boolewaat ma rimbax rek ma dëkkaat rimbax waaw yi santaat silla rek alaaji rawxaan silla yal na yàlla yokk leeram juraat ma soxna Roqaye silla yal yàlla guddal fanam juraat na man lii rek laa bëgg bëgguma leneen loolu mooy wane ni nit dafay fonk bokkam fonkal sa bokk waaw soo bàyyee say bokk ko àndal ma nga ànd ak ay bokkam ba pare ànd ak yow di jëriñoo ay bokkam di la jëriñoo yow nga ñaa yaafus ñàkk fayda te famille boo dem te bokkoo ca bu ñuy nasak di nocc dañ lay génnee ci biti ba nas ba nocc ba pop yambar ngay doon ca famille jàmbur mais jàmbaar ngay doon ci sa famille parce que lu nu wax boole la ca lu nu laaj boole la ca waaye boo demee nag ci famille jàmbur di fa yappar yappari a ah, yow tamit yenn saa yi kenn ñëw ni kii kan la xam nga loolu mooy minimise nañ le mooy bokkoo fi kii kan la waa ji naan kii suma xarit la ku baax la ustaas la nangam nangam fekk yow doo dootoo dara waaw dootoo dara yenn saa yi sax nga wax ñun la eh, lii nag affaire u famille la dégg nga affaire u famille la kuy dog bokk yàlla du ko jéggal kon kenn ku nekk na nga bëgg say bokk ki ci topp mooy doom joo xam ne dafay dënge ñaari way juram waaw dama ci insister toujours gis nga xale soo bëggee am barke fexeel sa ndey gërëm la fexeel sa baay gërëm la soo ko defee rek am barke waaw waaye boo yoree cinquante mille sa poche ni amatoo kilifa dangay ngay nax sa bopp dangay ngay nax sa bopp ah da ngay nax sa bopp ah da nax sa bopp ni xale dafay am kilifa su wuy jur suy dund sa baay ak sa yaay nañ la gënal sa sëriñ laa wax ci rajo laa ko waxee sa baay bi la jur ak sa ndey nañ la gënal sëriñ bi nga gis koo xam ne mën na ci sëriñam cent mille addiya wala cinquante mille addiya te mënul ci baayam cinq mille francs loolu foo koy teg ci diine loolu diine nangu ko loolu taxoon Cheikh Tidiane ni hadiya yi man duma ko lekk duma lekk seen hadiye yi ñu ni ko lu tax mu ni ñu ne ko ah mais ngay shérif di sëtu yonent bi sa maam daan lekk hadiye yow nga ni doo ko lekk mu ni seen hadiye yi di di richwa di corruption corruption di gar dama soxla gar bëgguma lekkuma ko Cheikh Tidiane laa wax de mu ni lekkuma ko seen hadiye yi duma ko lekk man Cheikh Tidiane ah, duma ko lekk parce que doom ju bàyyi baayam bàyyi ndayam jël alalam jox sëriñam ni sama hadi yango serigne bi ne ko talal ma ñaanal la da ngay ci yak sa sa ñaan rek yow serigne bi bo mel mu yak ay ay tàllalam rek mais yàlla du nang suñ mansour ci borom daara ci yàlla na yàlla yok leeram mu ko daan wax mu ne amul ngeureumal wuy juróom serigne bu la wax ne man na ci yow dara daf lay nax mënoo ci yow dara ndax ku amul ngeureumal ñaari wuy jur yàlla daf lay tejeul buntu lijaba ci mom fukuy tëj a ayoo tamit <laughs> yàlla dafa am nu mu tërale mu ne kooku yàlla du ko doom joo xam ne dafay dëngee ñaari wayu juróom ak koo xam ne dafay jël alcool ngeen baal moom mooy sàngara ku koy jël guddi googu yàlla du la jégal kon guddi yi ma wax yëpp ku ca bokk ko gaawantul tamit nga tuub balaa guddi nis fu Chaabaan di ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal ni weer wii di weeru baraxlu ku ci woor ñetti fan ca fukk yu njëkk yi ñu ngi ci fukk yu njëkk yi profitool gaaw woor ñetti fan ci fukk yi ba woor ñetti fan ci fukk yu mujj ya yonent bi nee na yàlla bindal la tiyaabay juróom-ñaar fukk yonent mais tiyaabay benn yonent xajul ci jëfu ci ci jëfu nit nag yow tamit yonent ak fi ko yàlla teg ak li ko yàlla may mu ne du ca yem mu bindal la tiyaabay ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yu ñu nangu soixante-dix ans du ca yam mu ni at ma soo ca faatoo yàlla nañ def lii am tiyaabay juróom-ñaar fukki yonent am ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at waaye bu mujj bi nag yàlla nañ ci yàlla musal yàlla buñ ci faatu ci at mi yàlla nañ continuer dund ba téeméeri at ak nangam ndax teel a faatu moom amul njëriñ parce que da ngay dem bàmmeel yi rek tëdd defaloo fa yàlla dara te fii tamit yàqaluñ ko fi dara kon yàlla nañu yàlla bàyyi fii ñu wér am fa ñu gudd di ko jaamu muy bég di nu kontaane ñu koy kontaane di kontaane yonent bi ak alquran ak nit ñu baax ni ba am téeméeri at ak nangam ñun ak suñu bàyyi ak suñu yaay ak suñu sëriñ seeg suñu ñëpp su suñu faatoo ñu soogaan di dem aljanna bila xisaabin wala iqaabin yàlla nañ ko yàlla boole defal ñun ñëpp ci barke yonentu sallallahu alayhi wa su ko defee mu ni yonent bi ne su fekkee da nga faatu ci at ma yàlla daf lay bindal yoolu ku shahid shahid mooy ku dee ci toolu xare est-ce que ku mel ni jaafar ibnu abdul mutalib xare moo tatt la daanoo ndeysaan yonent bi dafa daan toog di waxtaan sax di waxtaan ak saxaabatul kiraami ridwanullahi taala alayhim ajmain mu jëkk bi ak mu téenal boppam bu tedd ba mu yëkkati boppam ba xool kaw asamaan moom yonent bi ba yàgg mu ni waa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sigi saxaaba yi gisuñu ko ku nuyu ba muy fay mu jëkk ba yàgg mu ni saxaaba yi fay leen seen mbokk jaafar moo fi jaar ànd ak malaaka yi di doxali suñu borom service mu ngi leen di nuyu fay leen ko nuyoo kooku mooy shahid weer wi jar na dundal ah xam nga lii tiyaaba ji kuñ ko wax ci weer juróom-ñeenti fan ñett yu njëkk ñett yi ci digg bi ñett yu mujj xaar ci sa tànk tubéy waay ci sa lafu sër taxawal ko def ko waay ngir nga am tiyaaba ndax bàmmeel tiyaaba du fa doy déedéet bàmmeel ku fa tëdd sa tiyaaba du doy waaw tiyaaba ji lu mu bari bari rek day gën a baax kon nañ def yi jëli nañ ci Abdullah ibn Abbas yàlla yàlla yokk leeram mu ni dafa am benn waay bu ñëw ci moom di ko laaj ci koor kooru gàttango yi mu ni kaa ah, su fekkee bëgg nga kooru yontu yàlla daawuda ga attan nga ko nga nekk ca di ko def mu ni ko luy kooru yontu yàlla daawuda ga mu ko daawuda day kaani yasuumu yawman wa yaftir yawman mu ne ko Daawuda dafa daan dog dafa daan woor àjjuma dog samedi woor dimanche dog altine woor talaata dog àllarba woor alxamis dog àjjuma day woor tey dog suba yonent yàlla Daawuda noonu la daan def mu ne ko boobu soo ko mënee baax na muy benn yonent bi itam digle na ko nee na ku mën Daawuda di ko def Abdullah ibn Abbas ni waa ji soo nga def kooru doomam ja yonte yàlla suleymaan mu ni ko suleymaan nu mu daan def mu ni ko lii yonent bi digle ci baraxlu wi suleymaan moom noonu la dëkke woon weer wu teru day woor ñetti fan ci fukk yu njëkk ya woor ñetti fan ci fukk digg bi woor fan ci fukk yu mujj ya noonu la yonti yàlla suleymaan alayhi salaatu wasalaam doon def mu ne ko soo mënee boobu itam nga def ko yow mi may déglu soo mënee nga def mu ni ko bu la neexee tamit nga woor kooru yonti yàlla Iisaa ibn Maryam mu ni ko Iisaa nu mu daan def mu ne ah moom nag kooram xawoon na safte kaana yasuumu dahra kulla mu ne moom àddunaam yëpp daf ko woor bis yëpp lay woor ba mu des bisu iid yi yonti yàlla Iisaa du woori chaque jour day woor ni ah kooku de xam naa ni mooy mbokku Iran ndaw moom it day dama ko xamee léegi mat na ñaar fukki at mooy Iran ndaw su ma ko gis mu lekk bëccëg toujours dafay woor jàmbaar la ci koor lool macha allah yal na yàlla dolli ko dëgëral moom it dolli ko kattanal barki yonent alayhi salaatu wasalaam mu ne ah yonent yàlla daawuda yonent yàlla isa moom dafa daan woor diiru jamonoom yépp isa Eh, daan lekk bele ndeysaan bu woyof te bu guddi gi masaana jot mu jóg samp ñaari ndëggam yi ci suuf taxaw taxawaayam bu njëkk ba ndeysaan di naafile ba fajar si xar moom yonent yàlla Iisaa te mu ni yonent yàlla Iisaa bokkoon na ci yonent yi nga xam ne amul fu muy taxaw lu dul dana fa julli ñaari rakka ñu ka su bëgg nga kooram nga tamit nga nekk ca mu ni ko moom it yaayam Isa na Mariama yaaya Isa mooy Mariama moom it am na koor gu mu daan def mu ko nu mu daan woore mu ni ko moom day woor ñaari fan dog ñaari fan Mariama noonu la daan woore moom day woor deux jours dog deux jours ni ko su fekkee boobu itam moo la gënal nga def ni ko su fekkee ni itam kooru ngën ji mbindeef moo la gënal arab bu set wecc bi bokk ci giir xureesh bokk ci banu hashim di bàyyu xaasim di sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su dee kooram moo la gënal tamit ma wax la mu ko kooku nan la daan def mu ne ko weer wu nekk def ci daan woor ñetti fan loolu la ñuy tuddee ayaamul biiday fukki fan ba ak ñett fukki fan ba ak ñeent ak fukki fan ba ak juróom bu ko masaan def ba noppi danaan lii mooy weeru walaf wu teru nga woor fukki fan ba ak ñett ak fukki fan ba ak ñeent ak fukki fan ba ak am nañu wax ni fan ba ak ñaar fukki fan ba ak ñett fukki fan ba ak ñeent waaye moom dafa daan wax ni koor gi weeru wolof ku wóor fukki fan ba ak ñett fukki fan ba ak ñeent fukki fan ba ak juróom ñu tuddee ko ayaamul bii di xam ni weer wi day leer nañ mu loolu mi ngi tollook ku wóor sa diiru dund diiru jamono ni boobu daan na ko digle moom sang bu tedd bi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ni ay ca koor yaa ngoog bu la ca neex jëlal kon kooru gàttangu yaa ngoog di koor yoo xam ni tubaarakallaahu koor yu am solo la bu ko kenn sàggane gis nga nit yonent bi moo wax xaddis bi ne nit su faatoo ba nu dugal ko ci bàmmeelam julli yi lañ koy njëkk laaj ay julleem suñu xoolee julli yi mu am ay erreur ndeysaan te yonent bi ne julli su baaxul dara du baax nga xool julli yi julli julli ji am ay erreur yu ci nekk yàlla dafay wax malaaka yi seetal leen ma julli naafilaam yi dégg nga de seetal leen ma julli naafilaam yi comme farata yi manqué na xoolal leen ma naafila yi ndeysaan malaaka yi dem gëstu ji naafila yi xool ci naafila yi ne ah naafila yi de wax dëgg yàlla am na ci yu am solo de wax dëgg weeru koor gi daana def guddi gu nekk ñeent balaa muy julli tisbaar daana def ñeent jule jullee tisbaar bu pare daana def ñeent fajar gi fonkoon na ko lool daana ko def shafaa gu huit fonkon fonkoon na ko lool daana ko def gannaaw timis yenn saa mu def ñaar yenn saa mu def ñeent yenn saa mu def juróom-benn daana julli yor yor yenn saa yi daana julli ñeenti rakka yor yor wala ñaari rakka wala juróom benni rakka wala juróom ñetti rakka yor yor yenn saa bu guddi gi masaan sax ba dëgër mu jóg ndànk naa fi ay rakka julli korite daana dem julli iid julli tabaski daana ko def yeneen naafile yi ñu daan digle ci nisfu chaabaan yeeg rajab yi yooyu itam am na yu mu ci góorgóorlu yenn saa yi tamit daano def salaatu nuuraaniya muy salaatu nuur yenn saa yi tamit daano def salaatu tasbeex yëpp yàlla ni malaaka ya yi de doon na ko def ma ne waaw coppati jëndil leen ma ci naafile yooyu ngeen dugalal ma ko ci farata gen ngeen xoolal ma masalan ñu ngi ko doon laaj mille points ci juli ndeysaan mu am quatre cent amul sax cinq cent wala cinq cent sax amu ko am quatre cent ñu jël naafile yi fat fat fat fat fat fat fat ni suñ boroom am na mille trois de yàlla ne ah comme mille laa ko doon laaj te fàttal ngeen ko ci naafile yi mu am mille trois jéggal naa ko ne demal janna kon looloo tax naafile baax te am na ñoo xam ni ñoom mënuñu digérer ay kooru naafila déedéet bul wax loolu am na ñoo xam ni duñ ko def ba pare sax dañuy décourager ku koy def bul def loolu soo dul def noppil bàyyi kii def mu def waaw bàyyi kii def mu def parce que ki ku fonk naafila du fooy farata waaye kuy kuy sofentel naafila dafay sofentel farata waaw dafay sofentel farata dama ko wax benn waaye mu ne ma est-ce que safa ak farata la ma ne ko du farata de waaye soo koy bàyyi di bàyyi julli gee léegi man maa ko wax mu ma ah, ma ne ko soo koy bàyyi di bàyyi léegi léegi léegi te boo bàyyi julli gee da ngay dem ba bàyyi timis te boo bàyyi timis takku sànni la ku bàyyi suma mbokk nag man daanaka mën nga maa ba tisbaar ñëw def noonu suba ñëw def noonu nga nekk ab yéeféer moo tax toujours nit da koy da koy encourager ci lépp lu muy def te muy jaamu yàlla encouragé ko si waaw ah lii du sunna lii du du du du farata lii yàlla tegu la ko lépp lu nit di jaamoo yàlla te sharia bañu ko moom na ko def farata moom ki koy def. bu mu déglu ki naan la lii du farata bu ko déglu parce que moom yaafus na ba pare bëgg laa yaafusloo waaw dafa am ñoo xam dañoo yaafus ba noppi ku leen lu ñu yaafus loola am na ñoo xam ni julli seen problème la am na ñoo xam ni koor seen problème la koor gi day ànd ak jàmbat jàmbat jàmbat oh tey moom daa tàng tey nangam oh tey moom heure bi dafa yeex oh bii xëdduma eh, bi ndogu ma ndogu sama ndogu sama bopp bi di metti bi naanuma kafe bi naanuma ataaya mel na yow jaamu ataaya nga wala jaamu kafe wala kafe gi dafa nekk farata wala ataaya yi sa woor ba boo ko ratee xëy toute la journée moom ngay jàmbat loolu baaxul da ngay nit day fexe ba bu mu doxalee digganteem ak boroomam dara bu mu doxalee digganteem ak boroomam dara su ma sëriñ daf ma nettali ndeysaan nii Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiallahu taala anhu yàlla yokk leeram ne dafa toog benn bis boppam di metti metti bu tar ne mu jël garab bopp bi seddul mu léemu bopp bi bopp bi seddul mu toog ak mag mag ñi gis ni yaram bi sawaru ñu ni lan la mu ne ah mel ni sama bi daal mooy metti metti du tar jël naa garab mais seddul wàcc naa ko itam moo seddul kenn ci mag yi ni ko waa ah, est-ce que yaakaaroon ñu gura la parce que fan yi wala démb ba léegi gisuma la nga yëy gura mu ni ko gura mu ni ko ah, mu ni ko yaakaaruma ko de mag mi ni ko waa ah, est-ce que du gura dama yaakaar ni gura gi nga yëyul la mu ne ah ñu ko wutal gura kon ndeysaan wutal ko gura mu raxas si yëy mu yëy toog tuuti rek bopp bi ni leewu set mu dajale njaboot gi dajale mag ni ko woo waxoon loolu mu ni ko ah, sa wax ji am na de wax nga dëgg de sama bi di yéy naa ko yéy naa gure gi sama bi sedd na guy ni ko yéy naa gure gi sama bopp bi sedd na guy waaye maa ngi leen di xamal bis ne que tey man bàyyi naa gura mu ni ko déet mu ni bàyyi naa ko ñu ni ko lu tax mu ni bàyyi du am ñaari borom benn borom lay am du am ñaari kilifa benn kilifa la am du am leneen lu koy diriger naan ko jaaral fii defal lii bàyyi lii ku dul yàlla bis naka tey bàyyi naa ko gis mag ñi bàyyi na ko jeex na teew kaa dund teew kaa wér loolu li nga ci jànge mooy nit ki loo loo ñàkk bu ko jàmbat rawatina nag ci sa jaamu yàlla naanu ma nangam ndax nangam tey sama koor gi bari jàmbat bu mujj yàlla ni la moo yow te ngaa far bàyyi koor gi moom man bàyyi koor gi sax man yàlla ngeen baal ma ci waxin bi man yàlla nga bàyyi koor gi sax moo gën sedd léegi ci man ndax danga bari jàmbat te ko te wori ah te wori kon nit di muy jaamoo yàlla daf koy def ak bëgg ko sawaral ci cëram tàggat ci xolam tàggat ci làmmiñam bëgg ko bëgg xoolal mag ñi nitu yàlla yi su koor masaa ñëw bay jeex dañuy jooy gis naa xasida gu sëñ Babacar def di jooy weeru koor muy dem gis naa xalifa gu ma xasida maam borom tuubaa def di jooy weeru koor ma ngay dem mag ñi noonu lañ daan def dañ bëgg jaamu yàlla ah, dañ bëgg eh, lépp li bàyyi ñes ma tëdd mag ñi ne bu weeru gàmmu musaan teru lépp lu mu yor ci loxo bi daf koy joxe boo ko waxee mu ne ah weeru Ibrahima ñëw na ñu ko luy weeru Ibrahima muy weeru gàmm suma weer ndax ni mu soppe woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah kon góorgóorlu waajal koor gi mi ngi ñëw ndeysaan mi ngi ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan waajal waxtaay wi nag xam naa dañuy bàyyi ba et àjjuma bi di ñëw ñu tasante oustaz Mouhamadul Mansour Fall ñëw ndeysaan ñu àndaat ak moom ci waajtaayu koor gi àndaat ak moom incha allah ci koor gi yëpp comme niñ ko daan defee ci kàttanu yàlla e, waaye daal ñu ngi fàttali nit ñi rek ni ku amoon bor ci koor gi fayal fay gi sa digganteeg sa boroom la nit dafay ragal yàlla waaw nit dafay ragal boroomam e, ndeysaan Seydina Aliin radiallahu taala anhu dañ ko laaj lan mooy ragal yàlla تقوى الله موي الخوف من الجليل والعمل بالكتاب آه. والاستعداد للدار الرحيل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهنة سيدنا علي من رجل يلا موي خمني yàlla mi ngi la sëpp saa su nekk mu ngi lay gis saa su nekk sa borom mi ngi lay gis te sa dara du ko échappé wax na ko ci alquran ba inna rabbaka la bil mirsadi yàlla ne maa ngi lay sëpp sama bët mi ngi tege ci sa jëmm wax na feneen tamit ci alquran yastaxfuuna min annaasi wala yastaxfuuna min allahi wa huwa maahum iz yubayituuna ma la yarda min alxawli وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس نتنجين من النب نتنجين من الوخ نتنجين من التور لندم نتنجين من النخ نتنجين من الجبلن واي من يال منو لين من نخ منو لين من نبو يستخفون من الناس ما ولا يستخفون من الله <laughs> كان منو كنبو يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم نقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خفك بلا تخو على خمنك خل بلينك النب تلا من يكون دكو تدمك أما آه، يوسعيس الصدور يو يالا خمنك لي دور تسا خل بي آه، خل مديكو ترافاي يالا نين بمي تخل بي مانكو يك bi muy ci xel mi maa ngi koy yëg fu mu doon rek maa ngi koy yëg dara du échappé yastaxfuuna min annaasi aha nit ñi ngeen mën na nëbbatu wala yastaxfuuna wala yastaxfuuna min allah yàlla ne dara mënu nëbbatu aw wa maaw en yow miy nëbbatu jamono yi ngay lal palan yi man maa ngi toog ak yow maa ngi maa ngi xam li ngay lal ku yi ngay teg waaw da nga yaakaar ne boo ko defee mu baax da nga yaakaar ne boo ko defee raw يجب نانا من ما لي باي خل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله جمانو جنجي تك اي بالان ترلك وخلو دول دقك فخي نوشي جنني تفك يواك يالا نانا وخ جاك يب ما عندي مانكوي مانكوي يالا نانا وكان الله بما يعملون محيطا نيني لين دي ديف خمغ نوما ميلا يين دفل ميني بي نين كوي ديف ما لين ور ndombo maa ngi la wër ndomba di gis ni koy defe gis ni koy koy tërale gis ni ngay defee yépp kon ragal yàlla mooy nga xam ni bëtu yàlla bee ngi la sëpp muy benn ñaareel bi tamit ngay def lu baax bàyyi lu bon képp ku ragal yàlla day def lu baax bàyyi bon lu bon amul njariñ muy ñaar ñetteel bi itam ko ragal yàlla dafay jëfee alxuraan du sàggane alxuraan du ko bàyyi gannaaw léegi nag jullitu léegi yi nag ma gis nii nii nii nii nii alxuraan mooy seen dernier téere waaw da ngay gis koo xam ne na muy fonki mbind yi sëriñam bind du ko fonki alxuraan gis ko mokkal teysiir mokkal sindiidi mokkal leneen ak leneen te mokkalul isaa jaa ba suuf yàlla xam na ko mokkalu ko mokkalul isaa jaa ba suuf ni muy waaw tappale rek waaw waxee ñu tudd sëriñ si fii waati sëriñ si fii làqatu ci gannaaw sëriñ si gëmuñu sax sëriñ si wallahi wa sharaf al quran seen affaire rek lañ bëgg a defar ci gannaaw sëriñ si mais gëmuñu leen waaw gëmuñu leen kon da ngay digle lu baax def lu bàyyi lu bon attewoo bëgg téere yàlla bi foo toll itam Seydina Ali nee na ngay waaj waaj waaj pour lan wuy ci sa borom waaw waaj gi moom taxul a dem waaye waaj gi day tax ngay def lu baax waaj taxul na dem aw waaj taxul tukki wante waaj gi day tax ngay def lu baax rek a ah, te sax ci te te nekk ca ah su ko defee loolu moo doon tey suñu émission Miftaahul Huda ngeen seqoon ko seen mbokku daara Pape Makhtar Sylla tabaarakallaahu di ñaan yàlla rek yàlla def ci man dégg ak def ko ci yéen def ko ci mboolem jullit defee ñu ànd ak suñu

so defee ñu bàyyi ko rek mu tegal leen Ndiaga Ndiaye jëmil tuuti ñu ànd ak yéen ci 88 628 10 95 ñu ngi nuyu auditeurs ak auditrices yëpp di baral nuyoo waare mbax tabaarakallaahu ngi gis Oustaz Moustapha Sylla e, mi ngi ànd ak ñun toujours ci émission bi di ko ñaanal moom Moustapha yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko sutura defal ñu ko defal ko mboolem jullit ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam استاذ مصطفى سلان نقول مي باباخ تبارك الله عندك زيار باي مور سنو باي بوب سنو كيلفة وانت بني على الكو يالا يالا يالا في ما يكو وير تبارك الله نتبي مي باب سلان تبارك الله ودي سنو تاير دي تاير واري مخيب مو مو بوچ بعد سلا خلا يدف تاير يب نكي چي دي بير دارجين يلان دي مي دي لنا يالا يالا تغولين تغولين تغولين بولين جلتين ci barke Seydina Muhammad sallallahu wa sallam di ndokkeel waar yu baax yëpp nag ci tubaarakallaahu ziyaara bi di samedi bi passé defoon ko ci dëkk bu tedd ba gëri ndax sam ci dëkk bi nga xam ne dëkku nitu yàlla yi la Maxtaar ndeysaan maam Maxtaar dëkku maam Ibra Jama dëkku maam Modou Maguette dëkku maam Aliou Binte dëkku

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الأستاذ حاج داود نجاي بسرني عبد العزيز الأمين بسيخ سيد محمد المصطفى بسرني عبد العزيز الأمين مع نيوتي دي لزيار إمام الحاج محمد تابسل بسيخ سيد محمد المصطفى سيخ بسرني عبد العزيز الأمين بسيخ سيد أو بكر سيخ ميلين يباخ دي لزيار لبكة سواجه باخ باخ باخ إيه، أستاذ داود من تأي صوت بدنا كارتون روج bu baax di la ziar bu baax wa imaam. Oustaz Daouda tey danaa jox carton rouge bi de. dinaa xalaat lu ma def. ah da nga bu sëñ bu sëñ Abdou Aziz Al Amin bu Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha mais da nga fàtte rimbax de bu rimbax. ah buuru mbax ma yëg buuru mbax daal léegi incha allah. man nag kon léegi jeex bis na ko teg ko la wax imam alhaji Paax Matab Sylla bu Cheikh Seyd Mouhamadou Moustapha Sy bu Serigne Abdoul Aziz Al Amin bu Cheikh Seyd Aboubacar Sy bu waa rimbax. waa góor waay dëgg la ma ngoog ñëw na. dindi naa carton bi maa ngi lay ziar bu baax. kon bu baax baax baax baax. jërëjëf Ndiaye Diatta ndeysaan. waxtaan ko xam nga ko moo xaw na jàpp jot ko tey maa ngi waxtaan ci nit ñi nañu waaj fay seen boru koor yi. fay waaw boru koor yi yi nga xam ne amee nañ ko ñu fay ko. fay ndax koor gaa ngi ñëw ak taxaw tamit ci weeru baraxlu wi. Oh, ci loolu daal laa doon waxtaan moo doon tey suñu waxtaan su ko defee ñu ngi lay déglu ak sa contribution ci réew meek fi mu tolloog yëpp tubaarakallaahu xaji Daawuda Njaay imaam wax dëggalem bu dee ci wàllu koor gi wala fi njaay ne atte bor <laughs> fay ak fay est bor fay te xam naa ne imaam alxaj Pape Matar Sylla la bayka ndeysaan am na fula ju mat sëkk ba boo ñëwee lekk benn saako ceeb fayoo ko la nga fa waxaat ba gilax beneen saako ceeb dana du yomb de. dëgg la dëgg la dëgg la. kon nag ku amal leen ko lebon bor. Uh-huh. ci koor gi. Uh-huh. ko fay. Uh-huh. est-ce que. te bàyyi wax na ma fayoon toog yàlla. est ndax ku ku ku ku lebal yàlla. ba nga yàlla fay la. ndax wax dëgg yàlla fi ku julli tisbaar. ba nga yàlla nangu julli gi. kuy soo soñoon yàlla fay la yiw fay la àjjana. xam nga ne yow mhm. dama ko mhm. mhm. yoon fekk bu fekkee am da nga amul ngant. ngant tax ko. yàlla nangul la ko. ngant la nga amul ba tax yàlla teg la ko. yàlla teggi la ngant loolu. loolu rek Pape Makhtar war naa ma tax nga fay ko. c'est que da ngaa feebar woon wala nga am na ngant farat yoo xam ne ngant yoo xam ne topp sa bakkan nag moo tax may wax ngant yoo xam ne yàlla bu ma ko ñuy farata yàlla nangu la ngant loolu mm-hmm. te yàlla mën naa ko bàyyi ngant li ba déwén mm-hmm. mais yàlla teggi la ngant loolu mm-hmm. wax dëgg am taal nag boo dee gor a ba nga ko mën a fay ndax suñu ñoo xoon yàlla teg la teg la teg lu gën a métti loolu waaye dëgg la tam la foofu da nga koy woo yërmaane yàlla am mbaaxu yàlla mhm. ba tax mu teg la natt mhm. boo xam ne jigéen nga am ngànt mhm. yàlla bi dee jigéen nga am ngànt yàlla ne leen julli ga baal naa la julli ga ay koor gi nag ndax diggantam faye ma ko ndax dafa am bëgg ci yow ndax weeru koor dafa nekk ci ngëneel la ca nekk ci yiw la ca yàlla digle ak la yàlla wax moo tax yàlla bëgg laa fay lam la waxoon ak la mu digoon waaye nag ba la mu mën fay. da mhm. ngay matal lam la wax. Mhm. moo tax ñu ne ku def lañ la sant. Mhm. da nga laaj lañ la dig. waaye ku dimbul lañ la sant. lañ la jox rek. jàpp ci la ko jox la ko baaxee may la ko waaye su ko su ko nekk la ko jox. dégg la. ndax Paa Moussa bu ne leen suba xëy si huit heures. boo ko see huit heures ba midi jot. ma jox la cinquante mille. nga xëy neuf heures. wàcc 11h. Mhm. le pax mu taal ki la joxee quarante mille. jàpp ca. la ko jox rek. Mhm. waaye wax dëgg bu ko neex taxawal lànk ndax li nga ci contrat bi. Mhm. defoo ko. dëgg la. kon nañu fay bor koor yi. ndax koor gaa ngi a te bor du am rakk. dëgg la. bu ci amoon bor na nga ko fay. ndax wax dëgg yàlla taalam li ci yàlla wax daal. ak li ci yàlla ci yiw. ak li ci nekk ci ngëneel mhm. nga xam si benn bis mhm. bu gën junni weer ñu mhm. ngi ci biir weeru koor muy laylatul xaddar te boo motalee weeru koor bi kon na nga am fay yi laylatul xaddar waaye bu fekkee da nga am bis boo xam ne fayoo ko te bis boobu waroon mu nekkoon laylatul xaddar nag wallaay kon di ñàkk nga laylatul xaddar bi kon ñàkk nga laylatul xaddar est-ce bis boobu am nga ci ngànt waay waay waay fay leen boobi koor yi mhm. te bañ a sama fayanteeg yàlla mhm. yàlla bu fayante woo ñun mhm. yàlla mu ñun ñoo xaj ci yàlla mais yàlla xajul ci ñun nañ ko fay nañ li ñu xam moom su ko defee moom ci lan ñu dikk mu jox ñu ko imaam bi dee ci wàllu réew mi parce que mooy réew mi nañu am dal réew mi am dal nañu am dal nañu ànd ak sago nañuy jëfe suñu xel te bañ a jëf ak xol. Mm-hmm. ndax Mawlaay sëñ Abdou al daan na naan. allahu taala anhu. Mm-hmm. képp ku mer. Mm-hmm. jëfe sa xol. boo giifee. da nga wax wax sonn nga sëgg ndax am gàcce. dëgg la. moo tax lu ñu daan conseil. mooy yéen samay njaboot. yéen ñi ma sañ waxal. bu ngeen ba mu ëpp. damay ngeen jàpp toog ñaan dal. ni kontaan yi ba mu ëpp. dama ngeen dal ñaan mm-hmm. dox yu yëpp boo ki dee wax rek mm-hmm. seytaane ñëw na mm-hmm. ànd ak yow ngay wax rek di wax rek di wax rek surtout waxkaay yi média yi nga xam ne fii laa ko sama téléphone ak mën naa tudd sama téléphone li muy wax li muy wax nii ci rajo bi dëgg la est que suma jàkkaloo tax ma toog ci la toog est ce naa ko mën a wax est ce doo ko mën a parce da nga am lay da nga am lay rus waaye boo tëggee sa di wax Hmm. lu ca xel nekk rek yaa ngi koy wax. <laughs> dëgg la de. bala ñooy waxat nañ ko xalaat. Hmm. bala ñooy waxat nañ ko xool. Uh-huh. ndax te wax dafa naqare defaraat lu nekk mu ne ko waaye wax nu kaddu. Uh-huh. te ba Alhaji Mbaye Donde wax yàlla na rek ku yokk leeram ba Alhaji Mbaye Donde. ñun yàlla baax na. yenn sang dafa dam safara di yuxoo safara. Uh-huh. si benn nag. bu bu ba jaar ci benn palanteer ba génn. waaye mu bëgg a duggaat nag suñ lu koy jaara ci biir. Mhm. mu tëkku tic. est-ce que. mu nekk ca di kus kus ba suba ba nga mënul fexe ba jaar ca. Mhm. sang bi laajal ko lii lan la. Mhm. nag mooy kaddu. est-ce kaddu. wax bu xasee ba génn. ko koo defar. waaw oh, de dëgg la. moo tax maam Cheikh Tidiane Moussa nee na. seen maam Seydi Hadji Malick si nee na ko. kaddu si nga teg bala ngaa rëyu ma nit. ñu ne bàyyi ba ëllëg. ndax wax nga ni benn kaddu. Mhm. bu du ko xalaat. Mhm. ba xëy sàngoo suuf. Mhm. bàyyi fi ay njabootam. bu du ko xalaat. ba mënuñu fo ba ba ñu war a nekk li dëkk ko mën nekk ndax xat. ndax nga xool seen bàyyi. la kaddu ga seen maam. jamono jii nag. buñ dëkk mën na ngaa wax benn wax sax ak ay ñett ak ñeent ñu fàtte ko. waaye jamono jii. booy wax ci média bii. ak ñu ngi ci YouTube bi. ñu ci internet bi. waaye mhm. waaye xoolal looy wax. dëgg la. ndax tey doom yi ngi ñëw ëllëg de. Mhm. parce que nee ngi fi de. Mhm. bu ne da ngay dem. tey boo demee bàyyi si dem ay gàkk gàkk looy wax tey dem ëllëg. dëgg la de. ñu gën a ñaan seen yaay ak waxoon lii. bu bëgg koo wedd bi tegalal leen ci téléphone youtube ne mi ngi nii sa yaay nii. te foo koy miime. doo ko mën a miin. Eh, ndeysaan oustaz Daouda Ndiaye bu sëriñ Abdoul Aziz Alamine bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha mi ngi woon fu am solo tubaarakallahu jotu ko daaneel nag eh, ligne bi dagg xam naa mën na am dana dellu si waat ci 88 628 10 95 ànd ak seen mbokku daara Pape Makhtar Sylla ñu ngi nuyu auditeur ak auditrice yi nga xam ne ñu ngi ci ligne bi yëpp tubaarakallahu kenn ku nekk maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar mang lay ñaanal yàlla defal la tawfiq ci barke yonent bi alayhi salaatu 88 628 10 95 foofu ngay ànd ak sa mbokku daara Pape Makhtar Sylla ci seen émission Miftahoul Houda fii ci Safina FM 98.2 kaddu gi di bàyyi ko fii ci Grand Yoff ñu ngi nuyu ñëpp tubaarakallah di leen ziar di ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ci barke yonent bi alayhi yàlla ñu yàlla musal ci fitna ak lu yé fitna ak ku yee fitna yonent bi alayhi salatu wassalam moo waxoon ne al fitnatu na'imatun laana allah man ayqazaha fitnaa ngi nelaw kep ko xamni yow ya ko yé yow yàlla rëbb na la kon yàlla ñu yàlla musal ci yé fitna yàlla ñu yàlla musal ci wax fitna yàlla yàlla musal ci jëf fitna ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam 88 628 10 95 ñu jël mbokk moom te dellu si mbokk asalaamaaleykum salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. sopp ku sopp maam da baax maa ngi lay nuyu di la ziyaare. maa ngi lay ziyaare baax. ñu ngi leen di ziyaare. yal na yàlla nangu ziyaar bi. ñu ngi leen di ziyaare di ziyaare borom rajo bi ak kuy déglu rajo bi. Thierno Hamidou Yoro Bane. ku nekk ci rajo bi. بجاه محمد صلى الله عليه وسلم يا ساملنا اها امين يا ربي يلا ما يلنجر امين يا ربي امين يا ربي يلا يلا لا قلن في عقد الاب امين يا ربي لقلن يوتي يلا جتلنك يا ربي امين يا ربي لقلن دق يلا سرلنك امين يا ربي يلا يلا يقلن قيتي بطن امين يا ربي سمالن كاتن بمن كتبه امين يا ربي بقى جاهل ينفتي يلا يلا نقي يلا جاهل بنفتي لنا أمين يا ربي ما يلا قنا ينبي يلا يلا جهل لنا يا ربي أمين يا ربي جامي يلا قنا جهل يلا يلا ينبل لنا أمين يا ربي من جامي يلا ننقو تبقى ننقو مفولكو أمين يا ربي جانا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أمين يا ربي sen sen rajo bi de xam naa ku ci nekk ku ko ku koy déglu weer koor di ko bett Kukoydak vëndah radyoya të një sa për program vajën sen program më bënë dhe. Alhamdulillah. Sen program bënë dhe. Alhamdulillah. Radyoya dhe në fëkë si vajë dhjën dhe në Alhamdulillah. Bu koydurdu. Hı. Sen program bënë dhe program bënë aman gënë ame. Radyoya hı. Radioja në një sa program. Hı hı. yéen seen programme ba woon ngeen de. Mhm. bi ngeen ko sampee ba léegi programme bi benn la. Mhm. yàlla yónnante ba nit ñu baax ñi. Mhm. yàlla yónnante ba nit ñu baax ñi. jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Cissé. pour pour pour bugg a mën a jéem a jaamu yàlla. war da déglu seen rajo bi. alhamdulilah. ku ko jéem. war na koy déglu. Mhm, alhamdulilah. incha allah dañ si déggee lu mu lu toppee jaamu. incha allah. jërëjëf. jërëjëf maam. jërëjëf da baax jërëjëf maam sopp sopp. ma Ousseynou Fall Ousseynou mhm, Fall. incha allah. Ousseynou Mansour. incha allah suñu Mansour Fall. nuyu ma dina ko dégg. ku ne si rajo jëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf mm, jërëjëf jërëjëf euh, tubaarakallah suñu wuy jur wu tedd sell woowu di maam eh, tubaarakallah Cissé di sopp ku sopp maam da baax ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar eh, di mag mu baax yàgg ànd ak ñun ci émission yi tubaarakallah depuis soppi FM ba léegi tubaarakallah muy ànd ak ñun tubaarakallah dinu ñaanal ci biir émission bi di woote tubaarakallah di ñaanal rajo bi waaye di ñaanal itam borom rajo bi ak ñiy déglu rajo bi waaye di ñaanal réew mi yëpp tubaarakallaahu di ñaan yàlla rek yal na yàlla yàggal ko fi guddal fanam ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam 88 628 10 95 nga ànd ak sa mbokku daara Pape Makhtar Sile ci seen émission Miftahoul Houda fii ci rajo Safin FM 98 point 2 di nuyu auditeur ak auditrices yi nga xam ne ñu ngi déglu ci waxtu bi yëpp tubaarakallaahu ñuy woote ñu ngi leen di di leen ñi nga xam ni tubaarakallaahu woote wu ñu itam tubaarakallaahu tey déglu rajo bi ñu ngi ànd ak ñoom tubaarakallaahu ñoom tamit di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq defal ñu ko defal ko mbooloom julit ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaamu su ko defee seen émission ngoog Miftaahul Huda ñu ngi wàccal koor gi nag tubaarakallaahu comme ni ko suñu góor gi waxee ñun moom toujours ñu ngi ci waajtaayu koor eh, ndax saa su nekk rek ñu ngi jàngale e, ci loo xam ne lii soo ko déggee wala nga topp ko topp programme rajo bi da nga xam ne toujours rajo bi moom lépp lu xew rek tubaarakallaahu ustaas yi fi nekk ñu ci indi ay bind di ci indi ay jàngale di ci indi ay njàngat tubaarakallaahu pour kenn ku nekk rek mën a fàttaliku si digganteeg sa borom waaye kenn ku nekk mën a fàttaliku si digganteeg lawar ak say moroomu jaamu yàlla te loolu dafa am solo loolu kon loolu itam tabaarakallaahu ñu ngi ciy sant bu baax di ci gërëm ki nga xam ne mooy Thierno yor Yorobaan ndax loolu moo ko taxawal ndax rajo bi nag mënoon naa mel ni yeneen rajo yëpp ndax ñu taxawal rajo yëpp nag li tax ñuy taxawal seen rajo yi mooy bëgg lu ñu am def ci seen poche bëgg lu ñu am def ci seen njaboot waaye kii nag bàyyi na xel diine ji bayal ko xàllal ko. laaj wu rëy a rëy rëy rëy ngir rek diine lislaam mën a taxaw dem ci kanam ngir rek jukko yi baaxaat ngir réew mi naataat àggaat ca kanam kooku ñu ngi ciy gërëm Thierno Hamidou Yero Bane di ko ñaanal yàlla xelam xalaatam yi mu bëgg ci réew mi yëpp yal na ko yàlla jàppandalal ci barke yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem ñi nga xam ne nag ñoo koy jàppale rawatina suñu directrice rajo di Adja Ñimma Ba tabaarakalaaw di jàmbaar fàkk tëdd lool macha allah di borom taxawaay ak ay journalistam tabaarakalaaw ay ustaazam tabaarakalaaw ak ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci rajo bi rek di ko jàppale guddi ak bëccëg ndax wolof mooy wax ni benn loxo du tàccu benn lam du kelang nit ku nekk fa nga nekk muy dox fa nga nekk muy baax ña nga fa nekkal ñoo lay jàppale kii jàpp fii kii jàpp fii kii jàpp fale su yàggee rek lépp dana dox lépp dana baax kon loolu yam nañ ko yàlla boole defal ci barke sang bu tedd bi ci Madinatul Munawwara muy sayyidil wujud wa alami shuhud sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura defal ñu xéewal defal ñu teraanga bu sax ci barke yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam réew mii di Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm réew mii di Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ju sedd guy ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def fi naataange def fi juboo tappe xol yi def ñu ñuy benn dànk ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ñëpp ñu bëggante waaye ñu ñëpp ñu soppante waaye ñu ñëpp ñu wóolante waaye kenn ku nekk xam ni yow yaay sa morom sa morom mooy yow loolu nag ñëpp rek ñoo ko bokk tàmbalee ko ci kilifa diine yi kilifa aada yi tàmbalee ko ci tamit ñi nga xam ne tubaarakallaahu ñooy politiciens yi ñoom ñëpp tubaarakallaahu ñoo xam ne Sénégal ñoo ko moom benn bopp la du ñaari bopp te mënuñu ko séddoo ñëpp nañ ko bokk kenn ku nekk la nga xam ci loo xam ne lu rafet la lu baax loo xam ne boo ko defee mu yëwanal réew mi yëwanal koom-koomu réew mi yëwanal suñu diine yëwanal suñu lépp loolu ñu ngi ci woo ñëpp rek góor jigéen mag ndaw ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam su ko defee loolu kontaan nañ ci bu baax bég nañu yal na yàlla defal ñu ko ci barke Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu émission bi ànd ak seen mbokku daara al oustaz Pape Makhtar Sylla al oustaz Mouhamadul Mansour Fall tey dafa ñëwul Pape Makhtar Sylla wutu ko tabarakallahu ci taxawaay bi rek waaye ñu ngi nuyu ñëpp tabaarakallaahu di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na ñëpp am jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feebar bi di coronavirus bi yal na ko fi yàlla teggi jëlee ko fi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil ñu naataange indil ñu xéewal waaye di wax nit ñi nag bu kenn bàyyi bu kenn bàyyeeku luy bu kenn bàyyi bu kenn bàyyeeku nañuy takk suñuy masque fu ñuy toll ni ñuy diwoo suñuy gel fu ñuy toll nañuy moytu tubaarakallaahu mbooloo yi moytu daje yi tubaarakallaahu donte kilifa yi réew mi tubaarakallaahu yu bëri yi nga xam ni la nit ñi bëggoon ñu teggi ko teggi nañ ko ndax eh, jafe-jafe yi nga xam ni moo am ci réew mi eh, waaye buñ ko teggee tamit bu mu tax ñun ñu bàyyeeku kenn ku nekk na nga téye sa bopp bàyyi sa bopp xel bàyyi sa njaboot xel bàyyi ñi nga seqal ñëpp xel su ko defee loolu suñ ko defee rek incha allahu rabbi ñu ànd xeex feebar bi ñu ñëpp ñàkk yi tamit ñu ñëpp rek dem ñàkku ji ndax feebar moom bu mel nii di balaa di wër ci àdduna bi ah ñi xam di ay spécialiste ñi xam xam di ay professeur ñi xam di ay xaw ma sergeur xaw ma ñoo ñooñu wax nañu ay ñàkk ñoo ko fi jëlee ak docteur yi kon ñëpp nañu àndandoo topp seen ndigal dem ñàkku ji suñu ñàkkoo ba pare tubaarakalaaw di diw suñu gel di raxas suñu loxook saabu di def suñu masque di bañ a jaxasoo ci yenn jaxasoo yi nga xam ne la faidati fii suñ ko defee rek yàlla mën nañu musal ci feebar bi musal ci suñu réew musal ci réewu àdduna bi yëpp ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam seen mbokku daara Pape Makhtar Sylla moo leen doon defal seen émission Miftahoul Houda waxtu wi nga xam ne nag ci la war a tàggoo gi yéen jot na waxtu ñuy war a yëkkati jataay bi jot na kon ñu ngi fas yéene yëkkati suñu jataay nag tabaarakallaahu ba ajuma bi di ñëw oustaz Moustapha Sylla ñu ngi lay gërëm bu baax nag di la sant gis nañ taxawaay bi ci biir gis nañ taxawaay bi ci bitti yal na yàlla fayal ñu la yiw ci barke sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa